mbokk yi mbokk yi déglu Mbour FM 96.5 Mbour FM ànd ceeg waa URAC ak OIM organisation internationale pour la migration ñoo leen di proposé émission bu ama am solo ci wàllub migration irrégulière maanaam tukki yu jaaru ci yoon maanaam ñuy jël wàllub ndox bi maanaam di tukkee ak gaal wala ñiy tukki ci yoonub suuf si ñu àndi leen émission bi talaata bu jot su 18 heures jotee jàpp 19 heures surtout fii ci Mbour FM 96.5 di ngeen ci ànd ak Assane John mu daal di leen présenter seen émission bu am am solo bi muy migration irrégulière tukki jaar ci yoonub ndox wala ci yoonub suuf nekk tukki bi nga xamante ne jaarut yoon lan moo motiver jeunes yi ba tax ñuy jël gaal gi wala ñuy jaar ci yoonub suuf naan dañuy tukki lan mooy lan mooy risque tukki yooyu fii lay xewee ci Mbour FM 96.5 ku bëgg nag ñu tontu la ci laaj yooyee da nga koy jàpp 96.5 ànd ceeg Assane John tontu la tontu yu leer naññ ci wàllu migration irrégulière jàppal 96.5 woote ci 88 628 50 51 88 628 50 51 mardi bu jot su 18h jotee jàpp 19h fii ci rajo Mbour FM ànd ceeg Assane John Mbour FM en partenariat avec l'URAC et OIM.
salaamaaleykum mbokki auditeurs yi dal leen jàmm ci seen émission gindi émission bi ngeen faral di am tous les mardis maanaam talaata bu ne 18 heures jàpp 19 heures fii si rajo Mbour FM 96.5 tey nag dañ leen indil benn série d'émission boo xam ne dafay wax si li ñuy woowee migration irrégulière migration irrégulière maanaam mooy tukki yi nga xam ne ndaw yi dañuy faral di ko def te duñ ko jaarale vraiment si si fi ñu ko war a jaaree donc soo leen gisee loolu dafa fekk ne ay junni junni junni ndaw dañuy faral di jaar géej gi wala ñuy jaar désert bi te loolu dafay am vraiment ay tolof tolof yu bare bare yu muy jur si askan wi. programme bu am solo boobu ñu ngi si ànd ak waa Irak muy union des radios associatives et communautaires waaye tamit waa OIM ñi nga xam ne ñoom ñooy organisation internationale pour la migration te nga xam ne si biir àdduna bi yëpp ñoom ñooy faral di jàppale ñi nga xam ne dañuy faral di tukki.
Mbour FM j'adore.
pour seen premier magazine dañ indi ay témoignages ñi nga xam ne doon nañ jéem a tenté voyager waaye tamit dinañ leen proposer ay témoignages yu seeni famille. jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déglu bi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi ci magazine bi ñuy jagleel ñi nga xam ne dañuy faral di tukki wax naa leen ne li waral loolu mooy dañuy faral di gis lu baree baree bare ay ndaw di fi jóge di dem di jéem a tukki waaye loolu dañ ciy jànkonte ay jafe-jafe yu baree bare parce que ñu bari dañuy faral di dee ci ndox mi wala ñuy des ci désert bi te loolu nekk na situation bu jafe ci loolu nag indil nañ leen pour mën leen sensibiliser indil nañ defal nañ leen ay reportage ci ay migrants yi nga xam ne ñoom jotoon nañ dem jànkonteen ay jafe-jafe yu baree bare ñu déglu ki nga xam ne moom mooy Pate Ndiaye.
waaw man man man maa ngi man bi may dem bon Mbour laa bàyyeekoo dem Dakar bi ma demee Dakar dem stade l'amitié falaa falaa daggee billet bu mu yóbbu Mali donc mais billet bi ma dagg billet ñaame la mu ngi nekk soixante cinq mille laa daggee woon billet donc bi ma demee ba six heures laa bàyyeekoo stade l'amitié six heures laa fa bàyyeekoo quoi bi ma demee ba Mali ba Bamako gars yi sa këp soor yi nekk foofu boo defalee ndànk sax ñooñu dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay rey ndax dañuy ñëw rek përëx përëxi la léegi pour que nga avale pour nga dagaat beneen billet su ko defee ñoo ñooñu ñooy jël xaalis bi wala ñi ñi di la def noo xam ne daal ak check point yi aussi comme check point yi xam ngeen check point yi sama mbokk étranger yi donc yéen ñi jaar ci yoon bi xam ngeen ko xam ngeen check point yi donc checkpoint yi mu ngi bàyyi ko mu ngi commencé Mali jusqu'à Agadez jusqu'à Agadez mu ngi bàyyi ko mu ngi bàyyi comme Kidira boo rombee Kidira rek foofu ngay commencé dagg 1000 francs deux mille francs dix mille quinze mille ba vingt mille ba vingt cinq mille sax am na ci ba trente mille sax am na ci yéen ñu yéen sama mbokk étranger xam ngeen ci dara donc kooku boo yoralee xaalis pour nga yegg sax day doon risque waaw loolu la quoi et pour aussi tak nga xam ne ni carrément tey ñi bëgg a dem ak ñi demagul eh, pour ngeen dégg loolu nga xam ne ni tey boo dalay leer na boo yoralee xaalis rek pour nga dem du yomb di nga ci souffrir souffrir yu métti métti métti métti métti ndax gars yi dañ lay fayeeku boo yorulee dañ lay dóor surtout nag ñi nga xam ne ne ay burkinabé yi lañ dañuy dóore boo taxawee buñ la taxawee ne la fayal nga taxaw fa naan yor ma boo moytu dañ lay summi fëyet la bu ñu gisee sa xaalis dañ koy jël su ko defee nga nekk foofu di tu- di di tumaranke waaw loolu moom métti na aussi tamit métti na ma lool ci yoon bi gannaaw loolu nga bàyyi ko Agadez war a dem euh, Saba boo bàyyee ko Agadez ci 4x4 yi ci lañ lay dugal 4x4 yi dañ koy si chargé ba nga xam ne nii tey yéen ñëpp xam ngeen ko ay bant lañ lay jox nga toog ci nga toog ci 4x4 bi ñepp ko ba mu fees del dégg nga su fekkee ne ni sa 4x4 bi bu ñu yéegee montagne 4x4 bi man sans la sens mën naa mën naa mën mën na yéeg après wàccaa ndànk ngeen continuer mën na yéeg ba mu yàgg ba mu yàgg dootul dootul mën a dem mu këpp pour bu këppee nag ñëppay dee ndax ñëpp ñëpp gis ngeen tey ci désert bi ñu jaar ci désert bi ñu ñu ci bëree bëri bëri am na ci oto yoo xam ne ni dañuy këpp ñuy réer xam nga te oto bu këppee daanaka boo moytu bu ñëpp deewul it dina am ñu si dee léegi chauffeur bi nag bu deewee moom te ñi nga xam ne ñoo nekk ci oto bi te mënuñ dawal kon donc ñooñu dañuy dee donc ba balaa ngay dugg ak saba tant que dugg saba moom wala musrata wala baaxee pour nga pour nga sa bakkan ci xobu sam yow jàppal ne maanaam man mën ngaay dee léegi mën ngaay dee mën ngaay dee ci kanam mën ngaay dee suba aussi tamit parce que désert bi toll na ni presque fii toll na ni su ma yeboo ne toll na ni Dakar Bamako parce que désert bi dafa gudd man mënu ma xayma kilomètres yi waaye su ma ko mën a xaymaa daal maanaam peut-être mën na nekk Dakar Bamako donc dafa gudd donc risques yu nekkee nekk yu métti risques yu métti métti moo ci nekk waaw loolu daal moom mooy li nga xam ne tey moom mooy kii bi yoonu yoonu bii te métti na lool aussi tamit métti na lool lool lool lool lool métti na lool kenn mënu ko xayma fekk du dundoo ko donc doo ko xam fekk dundoo ko doo ko xam mais métti bi moom ak serpent yi ci biir man si ci yoon ci désert bi rek rey naa si ñaari serpent waaw si yo- si si yoon bi rek si désert bi rek rey naa rey naa si ñaari jaan boobu pour te dire donc man nag bi may dem man kenn doo nga àndoon ànduma ak kenn man kenn doo nga ànd waaw ok loolu la waaw waaw waaw léegi man ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a dem te demaguñu man ñooñu laa am lu may wax ak ñoom muy ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem te demaguñu pour di leen wax xamal na rek dara jaru ko dara aduna dara aduna jarul nga bàyyi ko Sénégal pour ne yaa ngi dem Libye nii Maroc aussi parce que ñaar yëpp dangereux boo demee Maroc ñi nga xam ne tey dañuy jaar Maroc ñoo xam ñi ngi jaar ci baar bi moo xam ñi ngi jaar ci euh, ci ndox mi moo xam ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko Libye pour war a jaar euh, Tripoli pour dem euh, I- I- Italie ñëpp ñoo bokk benn jo benn benn benn kii rek benn feebar ndax eh, risque la risque la risque la risque la risque la donc man maa ngi conseillé sa ñi nga xam ne ni tey samay moromu jeune lañ man actuellement c'est à vingt cinq ans actuellement ou bien vingt six ans donc yaakaar naa ne dara jommoo ma bi ma bàyyi ko Libye it ñëw def naa fa deux ans bi ma bàyyi ko Libye ñëw it dama gëmaat sama bopp rek donc bi ma ñëwee maa passé sama bopp bi ma ñëwee Libye bi ma bàyyi ko Libye ñëw Sénégal donc ñaar dërëm wàcceewu ma ko Sénégal fii dama nekk di xosluwaat parce que fi ma nekkoon laa ñëwaat bi ma ñëwee di xoslu pourquoi pas di xoslu di xoslu di xoslu di xoslu ba instant bi alhamdulilah donc pour nga xam ne rek maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk foofu it bëgg a ñëw am problème mu ñëw it pourquoi pas war nañ mën a ñëw def ni man ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem nag li ma leen di wax mu gudd ko gàtt mooy jaru ko jaru ko ndax doomu aadama foofu nekk foofu mënta ko nekk sa wërsëg xalaa kulli xalin dina ñëw ci say loxo waaw loolu daal moom laa am ci li may wax ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem te demaguñu ñi nga xam ne dañoo bëgg a ñëw nag am problème mu ñëw nañu ñëw parce que réew bu amul président amul jàmm waaw dund naa fa lu méttee métti métti dugg naa fa prison def naa fa deux mois prison dund naa fa lu méttee métti métti métti métti avec les animaux ñi ngi ci biir prison yi ñooñu di rey nit yi encore ndax man dund naa ko dund naa dund naa biir prison prison Libya dund naa ko lu méttee métti métti métti moom ngay nekk di dund ci biir waaw. métti na lool lool lool lool ñii am na ñoo xam ne nii balaa balaa balaa ba ñii am na ñoo xam ne sax ci biir prison bi la ñuy dee am na ñoo xam ne tey dañuy dajji prison bi di dem naar yi naar yi di damm seen tànk yi boog man lu ma gis la boog lu ma gis la lu ma dund la barki alxuraanul karim waaw ay étranger ay samay mbokk gambien yi surtout nag waaw samay mbokk gambien yi dégg nga ak malien yi Niger Nigeria ba ci waaw bari na daal bari na ay càdd électrique dégg nga ay Soudan ñooñu ñëpp ñu ngi libi te de prison yi dañoo fees dell dell dell dell dell prison yi yëpp a fees dell waaw prison yi ñi ma ci mën a li ma ci mën a lim bëri na ndax yàgg naa fa tey waxuma waxu dem libi mais waxuma waxu dem Italie mais bi ma ne maa ngi dem Italie rek laa am problème waaw yàgg naa fa lool. mais waxuma waxu dem Italie mais bi ma ne maa ngi dem Italie rek laay doog a am problème laay doog a dund li may wax nii lépp laa koy doog laa koy doog a dund muy ci wàllum prison yi mais quant à dem bi moom li mu ci dund rek la ci sama yeneen mbokk étranger yi si jaar dund ndax métti na te risque la ñëpp xam nañ ko risque la désert moom ku ne xam na ne risque la waaw ñii dañuy dee ñii dañuy dem ba mu yàgg dee ñii seen oto bi paan ñu dee ñii ñii am problème seen lekk yi jeex ñu dee da nga ciy gis ñoo xam ne sax daanaka su ma yeboon oh dafay métti daal waaw dafay métti métti na métti na trop trop trop trop waaw loolu daal ci la laa am na ci may li may wax ci ñi nga xam ne dañoo demagul li ma leen di conseil mooy bu ñu dem jaru ko ndax lii bi amul jàmm amul président lii bi bu amul président réew bu amul président rek amagul jàmm waaw lii bi bu lii réew bu amulee président amul jàmm te naar moom kenn du ko expliquer kenn parce que xam nañ leen ñëm ñëpp waaw xam nañ leen ñëm ñëpp kenn baaxoo ci. Maroc benn Maroc Libye yëpp a yem dañoo xaw a digg doom rek waaw parce que Libye moom dañuy xeex Maroc nag xeexuñ waaye li gën a bon mooy maanaam ñu naan la deful dara ñu naan nañ baax nañ baax nañ fekk na la ñuy def si biir sax doo ko comprendre mooy Maroc parce que waaw am naa ñoo xam ne nii tamit fa lañ jaar dugg nañ fan yi ci gën a temps yi ci ginnaaw ci korite gi waaye bu ñu la expliqué bu ñu bu ñu ba leen dégg téléphone ñu ñu expliqué la ci ngay comprendre que ni yow la ma dund rek nga dund daanaka kon jaru ko waaw jaru ko daal man daal ci sama gàttal jaru ko ndax wax dëgg yàlla rëccu naa daal li ma doon demee Libi téeméeri junne yoon te rëccu naa aussi yéex a ñëw gi ma yéex a ñëw Sénégal te amul kenn koo xam ne ni tey ñoo bokkoon nekk Libi tey nga nekk Italie moo xam nga nekk Espagne ma lay ñëwee amul dëgg yàlla. kenn du yëkkatiwul nag xaalis jox ma amul ma gaañu nag waaye maa ngi suturluwul ndax suñu borom soxlawul nga taxaw di ko ñaan may ma xaalis bu bëri may ma xaalis bu bëri may ma avion may ma lii ce qui est important mooy sutura te bu la ko suñu borom jagle la rek yaakaar naa desalatu la dara sutura lépp a ngi ci wér-gu-yaram a ngi ci am soxla faj ko mu ngi ci et cetera et cetera yi mu ci mën a lim biri na donc loolu la.
yéen a ngi ci Mbour FM. 96.5.
jërëjëf ginnaaw bi ñu dégloo Pate Ndiaye bi nga xam ne moom bi muy dem moom mi ngi ko jaaree woon ci désert bi ak jafe-jafe yu méttee métti yi nga xam ne am na ko ci yoon bi dañ leen di dégtalaat rek keneen ki nga xam ne moom tam jéem na tukki waaye moom dafa ko jaaree woon ci ndox mi donc pour wan leen rek jafe-jafe bi jeunes yi di am ci bi ñuy faral di di tukki donc ñu bàyyi leen ngeen déglu Moustapha Mbaye.
waaw man maa ngi tudd Moustapha Mbaye dëkk Mbour Tefes waaw man demoon naa mbëkk di dem ci see maa ngi fi jóge woon dem waran laa duggee yoon gaal maa ngi fi jóge presque diggante ay une heure du matin jàpp deux heures du matin quoi laa fi jóge woon mais maa ngi àggee Espagne dimanche samedi dimanche samedi si guddi ay diggante trois heures du matin laa àggee Espagne ba sa dimanche ñu jël ñu yóbbu ñu ba ñu yóbboo ñu wàcc ñu xool ñu amul kenn ku gaañu affaire yooyu ñu yóbbu ñu përis ba ñu yóbboo përis ñu téye ñu fa ay fan laaj ñu ne doon def ba ñëw affaire yooyu quoi pour ñoom espagnol pour ñoom ñun bato moo ñuy indi ñoom loolu lañ yaakaaroon commencement dañoo yaakaaroon ne gaal ñëwul quoi bato yi moo ñuy yeb ba foofu dugal nañ gaal loolu ñoom la espagnol yi yaakaar te fekk na loolu amul quoi boobu gaal lañ jógee dem fii dem ñun ñu doon na cinquante neuf personnes mais yàlla def na kenn amu fi jafe-jafe kenn gaañuwul waaw ñun cinquante neuf personnes doon demee am nañ fa lu mat ay prime de boo fa essayé dañ la naan yow fii quarante jours la lay téye lu nu mënti dee quarante jours moom bu matee moo xam da lay ñibbisi moo xam da dafay des mais quarante jours daal dafa am. dañ fa téye daal ba ay quarante trente nangam jours la ñu fa téye quarante jours yi manqué na tuuti ñu wax ñu yéen ah dañ leen yóbbuwaat Sénégal xam nga su ba ñuy dem sax avion bi ñu jëloon avion bu mag la mais moto dañoo dañ ñoo xaaj daf ñu ñaari tey ñu indi nii tey tey lundi ñu suba ñeneen ñi mardi yi ñëw boo dañu wax ay policier xam nga yi monotaine yi yeew suñu loxo xam nga fii ñoom yaakaar ñun dañuy daw ak affaire yooyu quoi boo dañu wax kenn ku nekk ak policier ni taaj ab siis bi nekk policier léegi balaa ñuy dem ñu ne dañuy avant avion bi départ ñu wax ne ñun dañuy delloowaat Sénégal mais gouvernement espagnol dina la may kenn ku si nekk cent quatre vingt dix mille mu wax ñu ko avant ñuy dem ay euro la sax la ñuy jox léegi ba ñu ñëwee ba Sénégal ba avion bi waaj a wàcc kenn ku nekk ñu jël sa xaalis def ko si enveloppe jox la ko ba ñëwee ba Sénégal ñu wàcc avion bi wàcc an wàccee kii Sénégal yi ñëw bañ ñëwee jox ñu kenn ku nekk xool ñoom ñu dugg xool avion bi xool ba si yàgg ñun ñëpp ñu wàcc. ba ñu wàccee ba pare ñu ñëw waxataan waxaa ñun kenn ku nekk dafa naa jox ñu paas xaw ma man trois personnes laa ñu jox ñu comme ñu dëkk Mbour ñu boole leen dix mille xaw ma paas ku nekk ñu boole la paas quoi ñu est fii Mbour ay presque ay trois heures de matin lañ est Mbour ku nekk dugg sa kër dem ban xëy suba suñuy mbokk suñuy waajur gis ñu nañ la dañuy ñibbi si ne waaw xam nga am ñu ñëw ñu bëgg a dem ñëw nañu nag dañuy dem affaire yooyu ñu ne ah ñun de dem nañ indi nañu xam nga nag yàlla na moo xam xam nga ñun ay mool nan affaire bi moom jaaxal man samay mag ne na ma dalay ñu paasaan moo na damay dem waroon laay de waa delluwaat maam ay fan ne na paasaan na dañay dem man naa àndoo sama rakk ji ma bokkoon day bàyyi laa àndoo mooy suñu caat moom ñu ñëw ba si gaal gi gaal gi fees ñun ñu bëri si gaal gi fees te man ba mu ñëwaatee man demaat ne ko tuur sama xel waaw parce que affaire bi wóorul dem bi wóorul ku leen la wóor na dalay nax dem bi wóorul mën naa milaas sa bopp moom balaa naa dem parce que dem bi wóorul lu ne lay doo gis mais lu ne lay géej la kenn xamul amul bàngaas boo soxla ñu si mën fii bërul te foofu boo fa mënee fii sax wóorul parce que wóorul waaw léegi ba ñu ñëwaatee ne dañuy dem man ah dem gaagu fees man man damay oññeeku man ma oññeekuwaat sama rakk di dem ñoom ba ñuy dem ñoom it yàlla moo si def jàmm ne tamit doon doon waaj a dee bu du woon boto yi dañuy waaj a dee parce que ñoom nekkoon na si diggante du ndax dee mais yàlla def na ban àgg ñoom ñëpp si jàmm moom ba léegi sax moo fa amul këyit ma ba wax léegi yàgg na ba am na fa man tuddee naa ko doom sama taaw moom laa ko tuddee sama rakk ja fa ne sama taaw loolu laa ko tuddee am na fukki attaque xaw ma ñett xaw ma ñeent xam nga yàgg na amagul kayit mais heureusement moom it amul jabar fii Sénégal mais papa mi dund yaayam suñu yaay gaañu na mais ñoo suñuy mag waaw ni ñuy déggante sax jour ni ñuy déggante ba démb ñu ñuy déggante mais min si jàmm man ba ma ñëwee man dama ne carrément man dew ma yebaloo ma kuy dem kuy dem na yaa xam ku bëgg a dem yàlla mais fu may waxaa yow nii wóor na yàlla am na ko dama barki démb nan dem man ko dew ma booy dem la dem man dew ma pour jaar morok dem man a man dew ma kon ba léegi nit ñaa ngi dem ba léegi ñu ñaa ngi dem mais ku bëgg a dem dina ku am na ñoo xam ne moom fal mu boo la waxee ne dañuy dem boo nee du dem xam nga ni ku ne danaa bugg xam nga rek danaan kii buggul a dem ak affaire yooyu noonu affaire man am naa fa am naa fay mag am naa fa ay xarit am naa fa lu ne dafay dem bureau ji yëpp presque ñu ñëw dëkk waaw mais kuy tukki daal moo sa yoon booy dem yegg si avion moo gën a wóor mais clandestin wóorul ku ne la wóor da lay nax ku ne la demal du sa mbokk sama jarbaat gaañu na si sama jarbaat may waxoo ne ànd naa sama ñaari jarbaat kenn ki sewe kenn ki dem kenn ki mu ne Italie mu ne Espagne kenn ki laa dee fi may wax ak yow nii laa dee wóorul léegi mooy xaalis boobu ngeen di demee fan ngeen koy jëlee ak ñaata la.
xaalis bi man maa ngi demee woon quatre cent mille laa paasoon. waaw xaalis bi dañ koo liggéey dañ koo liggéey sama mag moo ko moo ko moom sama mag du jigéen moom moom xaalis bi moo ko liggéey jox ñu ko nañ dem moom moo ko moom dañuy dem sax suñu papa xamul woon ne dañuy dem. sama yaay daa teel a génn génn àdduna sama mag ji moo fi ne xam nga man boo nee taaw ñu am mooy suñu mooy suñu taaw mooy suñu yaay instant bi ñu toog ñu wax li ñuy def lu ne moom la ñuy wax te dañoo déggoo xam moom wax na ma forcé na ma ne dem ma non man du ma dem man du ma dem du ma dem bu fekkee tukki rek mooy tax a am ma am na man du ma am man du ma dem parce que kuy dem di naan di seen wóorul ku ne la wóor na dara na wóorul man mool laa damay dem géej tey may wax ak yow dama doon liggéey nii as ooma nii fu may wax ak yow damay liggéey suñu mbaal nii mu ooma si la ma waxee ma xam ne sama mag la ma bàyyi lépp lu muy def xam ne sama. ah waaw conseil ma lay jox ma ne ah xam nga nit ku ne moom ñu ngi dégg dee ñoom ñu ngi dégg ñu dee ñu ngi koy dégg li si am ñu ngi koy dégg am na ñoo xam ne mool nan dem nan ay mool nan dem di jooy noo jooy dem nan ba àgg nii jooy. àgg nan mais gëmuñu woon nan àgga parce que ku ne yow yaa ngi si nekk si diggante dund ak dee tey sama am na ñoo xam ne as moom am na benn rakam boo xamante ni ñoom tey jii bu fekkoon ñoom amuñu xalaat tuuti day kii dañuy dee parce que demoon na ba ay dem ñoom seen lépp diix seen essence lépp diix moom benn rakam moom àgg na dem na ba dem ba demati ba dem ba dafa ni mu ngi fii toog mu ngi fii vacance am mu ngi fii. mais xam ne moom moom boo awaajoon tey li ma la wax wóorul ku demul nag danaa booy wóor danaa kii bëggul la dem mais wóorul.
risque ngeen di am si yoon bi. waa léegi lan moo tax nga ne yow bëggatoo dem li nga bàyyi woon fii da nga da nga jàpp ne moo gën li nga dem wuti wala.
non lu ma bàyyi nu fii ba léegi nii damay wax nii lu ma bàyyi nu fii garaaw ndóolaar damay verser xam nga mais dama xam ne booy dem si yoon day dem si yoon boo xamante ni ah day am jàmm. yoon bi du yoonu jàmm tey ku la woon takkal seen tur ba ma lay dem dagal lu dugg oto mu yóbbu la ba aéroport la takk seen tur mu naaw dem bokku la lu dugg gaal di dem gaal tey jii déggoolu ma la ku la tàggu na la gaal laay dugg ah booy añee boo waree añ ah ba boo waree ndékki ñu jox la genn wàllu mburu doo lekk genn wàllu mburu parce que day xalaat ka dem xamoon na dina àgg xamoon dem téléphone bu sonné da yaakaar na moom la te foofu boo fa nekkee mën na faa dem ay am ay fani fan kenn du la dégg say mbokk du la dégg parce que doo oote ranaa oote day nekk si jàmm parce que ñoom say loxo lay nekk police bu la téye doo oote téléphone balaa daa oote lu lay loola boo demee ba xam ne jënd na nin lay bàyyi si benn kaan yi si la lay may la oote baa leen cotiser ay téléphone xaalis ku ne cotiser lañ jënd lañ jox kuy jënd añ mu jëndal leen téléphone yooyu ñëwee ku si ne téléphone boobu ku si ne si lay woo sa mbokk mais téléphone bi kenn nit moo koy téye ku ooteel comme boo ootee nee na jox la jël ay dugub kaay affaire mais amul doxi amul tam fenn dañuy toog nii rek kàllu quoi comme genre kaso lay doon rek waaw ba ñu ne dañ lay kos dañ lay tëj du la ubbi ku lay tëj du ko ubbi koy kaso la. dem naa benn yoon gis naa ko kenn du ma ko wax kenn mënatuma fee jëlee du ma yóbbu parce que man sama magam bopp la am naa yor naa soxna yooyu doom xam nga man naa ne du ma tax a naan petit parce que xiifuma rafewuma aw ma mais fii fu ma rafetlu ma quoi mais xam naa fu ma fëgg dina ubbeeku te am naa ñu fa ne am naa fa mag bi fa sama magaan fa Italie moo fa boobu grandissé amul ba mu ngi yëgee ne li tax dara li tax ñu ñëw sama mag ma bokkoon day bàyyi moo fa mais grandissé grand. ah wóorul ku ma déggal doo dem. ah day ak ñooy seen i pexe xam nga grandissé instant bi wóorul ku ko def ku ne dan lay jàpp. ah gars yi ñoom ñooy kii ñoom ñooy teg seen diir la Fatick dégg naa am ñun jàpp ji fii waaw am na fu ne fu ne lay gars yi demee mbuur ji la di sax gars yi mën na fee tëmb te yow doo ko xam fu ne lay gars yi demee am na gars yi fu mu toll nii am na ñu bëri lay Maroc lañ jël am na ñu jël ay Libi di dem mais loo gën a dugg boor bi rek mu gën a neex mais loo gën a dugg boor day yomb bi day gën a sori mais xam nga nit ku nekk ak fu lay dem am na ñu demee ba Guinée bi Casamance di fa tëmbee mais dafay metti loolu dañuy dem ay côté Ndar mu tane mu yoon bi gën a neex kayaat muy gën a cike boo demee doo ko daw daw lu bëri mais xam nga mais grand lycée daal sa waay ah ah toog bi moo ko gën waaw mais xam nga rek Sénégal boo ne toogoo mu ne bëggoo ma jàmm affaire yooyu noonu quoi xam nga mais wóorul man ba ma ñëwee daa ne leen lii wóorul ba ma ñëwee ñu indi ma.
lan moo koy poussé pour mu leen di fayal noonu ngeen di dem te mu xam risque yi.
waaw. non moom xamul risque yi parce que boo xamul risque yi dem mais xam nga moom jigéen la boo waxee danaa demal ndax ne bëgg naa dem la mu ne waaw na dem c' yow dina la laaj nag yow bëgg naa dem yooyu waaw boobu ne bëgg naa dem mu ne waaw man ba mu ne bëgg naa dem boobu dama ne premier dama ne waaw mais deuxième ba mu ne bëgg naa dem ndax ma ne ko dewuma ah dewuma continuer dewuma laa ko wax jéem quatre cent mille lañ fayoon ñun quatre cent mille cinquante neuf personnes la quatre cent mille lañ fay.
waaw quatre cent mille yooyu nga foog ne boo toogoon fii Sénégal amul leneen lu mu mën a liggéey.
quatre cent mille Kaasam yi bëriwul fii liggéey fii Sénégal non kaasam yi bëriwul loo fa mën a mën a liggéey kaasam yi kaasam yi du xaalis taxtul bee xaalis la rek mais bëriwul kaasam yi boo yëgatoon kaasam yi loo si jënd bëriwul de kaasam yi ah xaalis la moom mais bëriwul.
mais boo duggee si marché bi euh, marché bi am na ñoo xam ne avec cinquante mille li ñuy démarrer ba tey jii ñoom vraiment euh, yàlla defal na Waaw.
leen xéwal waaw nit ku nekk ak sa sens am na ñoo xam ne bu ñu amoon cent mille commencé liggéey mais pour man bokk quatre cent mille moom parce que man wàllu tuuti la ñuy liggéey amul lu si gën a tuuti si di moo si gën a tuuti cent franc lay jar amul leen loo xamante ni quatre cent mille bu dee si wàllu jëj moom matul dara jëj dara la matul matul dara waaw.
bëgg liggéey amul liggéey nga di ko wuti ba dugg gaal dem ba ca diggu géej ay bakkan des ci xale yee metti naa yaay.
FM, la radio qui vous écoute.
Mbour FM, la radio de toutes les générations.
même su fekkee ne ñu bëri nañu jàpp ne dem bi moom mooy solution bi dañ leen di fàttali rek ne euh, dem boobu bëri na ay risques ak ay tolof tolof yi nga xam ne euh, ñoo nekk si biir Euh, dañ leen di bàyyi rek euh, yi nga xam ne ñoom ñoo jotoon a dem su ko defee ñoom ñu expliquer leen yan jafe-jafe lañ dund si yoon bi.
man jëluma woon intention dem d'accord Euh, li ma yóbbu woon lenn rek la woon mooy dafa am sama ay xarit yoo xam ne ñu nekkandoo woon Mauritanie Nouadhibou ñoom ñu jël ni dañuy dem versé nañ seen xaalis fekk yàgg nañ maa wax sax yëguma woon départ bi ni versé waaye dañ ma yàgg a wax ni ma am nañ yoon gis nañ bunt pour dem Espagne après ma xamal ne ne wóorul ah ay risque la leen ci mën a fekk bëri na ca 400000 ouguiya bi nga bëgg a verser soo ko jëlee dara la CFA man nga am leneen loo ci liggéey par rapport ak ngay dem finalement ci lañ ma xamal ni verser nañ ko ba pare te mënuñu ko retirer waat kon dañuy dem après ci lañ ma piégé ni ma garaawul léegi buñ demee ak ni ngay waxee je pense que boo waxee mën naa am ñu ñu delloowaat ñu suñu xaalis ma leen garaawul léegi ne leen dem après bi ñu luyee taxi ma yéeg ci taxi ba ànd ak ñoom ñuy trois personnes bi ñu demee ñu wàcc euh, ñu jaar ci benn ruq ñu fekk fa convoyeur bi mu toog foofu di leen xaar fekk gaa yëpp ñu ngi ñëw ñooñu rek ñoo desoon bi ñu ëgsee ñu ne gaa yi tardé ngeen de après sa waay daal ne ko noo ñëw nañ nii quoi ñu ngi dem ma ne ko kon pare ngeen pour dem ñu ne ma ma ne leen kon ok yoonu jàmm bi ma retourné pour dem ci la ma ñaari ponkal dab ñu jàpp samay temps ñu meem ma yóbbu ma après ci la ma sama beneen copain bi ni ma xam nga lu tax ñu indi la ma ne ko ah mu ne ma dañoo wax gars yi ni leen yow boo demee di nga dem ma ne ko ni nga ko waxee noonu laa koy defee su ma doon egg police laa doon jubal pour wax leen am na gaal bu bu départ ñu ne ma nag loolu moo tax gars yi jàpp la pour yóbbu la pour nga dem bu dee dee ñun ñëpp ñu deeandoo bu dee sauvé ñun ñëpp ñu sauvéndoo waaye duñ la bàyyi nga dem ci noonu noonu d'accord léegi bi ma waxee loolu ci dañ may yóbbu ma ànd ak ñoom ñu dem am na ay yu xewoon ci biir gaal gi bari na ay affaires yu yéeme xewoon na ci biir kon yéen par gaal ngeen dem.
gaal lañ demee waaye li ci gën a garaaw mooy ñun suñu gaal dafa dafa tojoon dafa toj waaye teewul soox nañ ndax fi mu tojee parce que eggoon nañ Canaries léegi ci la sapeur yi ñëw euh, ci la waa Croix-Rouge ñëw jël si ñu biñ dikkee ñu jël ñu plan bi leen sauvé sax man maa ko wax ndax capitaine bi man maa leen wax ne capitaine bi dee na ci géej gi automatiquement bi gars yi laajtee ndax capitaine bi lañ soxla ñoom pour jàpp ko ma xamal leen non buñ leen laajee rek ne leen capitaine bi dee na après biñ dikkee laaj kan mooy capitaine gaal gi ñu ne ko capitaine gaal gi dee na moo tax ñu yàgg ci yoon bi mënuñu xam fu ñuy teer ndax ñun ñu nekk bi kenn du ci capitaine kenn du ci xamuñ ci ni ñu dawale gaal d'accord léegi bi coow li bëri noonu après ñun. non lépp ay risque la commencement ba fin lépp ay risque la risque bi ci jiitu mooy mooy ñi lay yóbbu maîtrise ñenn ñi maîtriser wuñ yoon bi am na ñoo xam ne fi ñuy daw ay bato ñoo ko war a daw. gaal jaar ndax ñun bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu traversé océan Atlantique bi dañu gis ci li ñu gis ci am ndox xanaa xalaatuma woon ni lu mel noonu am na biir géej ay vague yoo xam ne ëpp na 15 mètres ci kaw gars yi di ko percer di jaar ci biir man dama ne lii rek risque la maanaam képp koo xam ni jaaroon nga ci ndox mi dem di xalaat man su ma doon xalaate dootoo ci jaar waaye nag gars yi bi ñu dem dañoo am seen bàkk bu ñu doon def Barça wala Barsax xam nga ki tànn ñaar ñooñu benn mu dund wala mu dee kooku lu mu metti metti du tee yoon bi moom bu ko gisee day demaat ndax bi ñu ñëwee man bi ñu ñibbisee maanaam bi ñu defee quarante cinq jours foofu maanaam def nañ Canaries yi quarante jours quarante jours jël cinq jours yi ñu def ko Tenerife cinq jours yi ñu def Tenerife lañ jël ci la ñu embarqué pour ñu ñibbis Sénégal bi ñu ñibbisee Sénégal ñoom ñu préparé waat waaye man ak sama beneen collègue bi moom delluwuñu ndax keneen ki moom bi mu traversé fi ma traversé ba mu gis yoon wi moom demaatul waaye rakk ji moo jël place am dellu instant bi sax ma ngi fa rakk ji mi ngi fa beneen copain bi dem na ñoom ñaar yëpp ñi ngi fa waaye man ak keneen ki nga xam ne moo ci gënoon a nekk mag gënoon a nekk sama gaayan ma doon koo wax muy bañ ñoom ñaar ñun ñaar moom delluwaatuñ ndax xam nañ ni dañu doon risqué suñu vie te ba neen dund mën nañ koo dund par rapport ak même bu ñu ama deban fool ba jàll luñ fa mën a am ci xaalis dañuy xam ne dañoo xaru ndax deegum ci dee lañ dox ba egg doxuñ ci leen loo xam ne jaamu la ndax am na moment boo xam ne ay ngan di jën ñooñu topp ay raquin dañu mujj béton essence yi ñu yor moom lañuy bënn di ko sotti raquin yi di ci naan di ñu daw di ñu topp mujj ñuy taal ay flamme di ko sànni ci seen ginnaaw pour ñun ñu mën a ñu mën a dem nga xam ne jën yi rek mën na ñoore damaa jilale ndoxu géej gu bëri waaye jën kese mën na ñoore moo tax man képp kuy xalaat jàppatuma ni mu gis yoon woowu noonu dootu ci jaar di dox wala bu ko defee man damay jàpp ne day daa daa day xaru ndax képp ku dul ku dul xaru moom doo gis sa dee di ci jaar d'accord ma ne ku ku xaruwul doo gis sa dee di ci jaar léegi bi ñu bisee sama yeneen collègue ñoom dellu kenn ki dellu ak rakku beneen collègue bi waaye man delluwuma fan laa dellu dama ñibbiwaat noa di ga ma nekkoon ndax benn sama caabi néeg maa ngi moom dama dem ubbi waat sama néeg dugg ci laa sax yónnee sama xaalis bi ma jotoon a yor ci laa ko yónnee Sénégal ndax ci biir gaal gi am na benn histoire bi xew ndax gars yi dañ ne ñoom tekki nañ ba pare premier jour dañ ne duñu ay sénégalais non ku ñu laaj ñun duñu ay sénégalais ñu dem ba mu yàgg premier deuxième jour gars yi commencé di miin ndox mi commencé di yëkkati ay samfal maanaam di sikkar sikkar yu neex man leen fee ngeen de gars yi ndax da ngeen a waxoon ni du ngeen ay sénégalais ci laay laay ila laay faal moom Sénégal doo ko la am gars yi commencé bi amoon na sama ne collègue benn jigéen la moo nekkoon ci gaal gi moo ñu daan defaral café Touba bi ah xam naa mi ngi côté Aynoumane foofu la dëkk léegi xam naa ne soo ko gisoon dina la gën a mën a détaillé ndax moom yaay ruxu la bi gars yi doon am problème ci biir gi sax moom moo doon gérer di gérer affaire yenn góor yi doon yuuxu sax moom moo doon attaqué di leen saaga ah naa leen xaa du ngeen ay góor tey mi ngi toog dematul ndax xam na ni fi mu jaaroon du aw yoon wu baax donte xaalis la doon wut xam na ni amul xaalis foofu waaye mënoon na faa sax ñàkk bakkanam ci biir loolu histoire bi ma ma ne li tax ma ne gars yi kii na maanaam xaalis yi ñu yoroon CFA yi dañ ko bëggoon a sànni ci ndox mi léegi man maa nekkoon ci biir gaal yi di ko ramasser man leen man comme nan da ngeen maa yóbbu ci far force man jox leen ma CFA bi dama ñibbi histoire ak moom Sénégal ci laay dajale di dajale ba dajale ci cent quatre-vingt mille yoo xam ne CFA la boo xam ne gars yi dañ ko bëggoon a sànni ci biir ndox mi ndax nee na ñoom tekki nañ ba pare soxlaatuñ CFA ko euro la ñuy wër ndax bu ñu yoree CFA ne nañ kon dañuy xam ne ñoom ay Sénégal lañ ci toujours dañuy nëbbutu ñeen jël seen quarante yi di ko sànni ci biir ndox mi ndax nee nañ soxlawuñu ñu leen di identifier di xam ne ñoom ay sénégalais lañ man sax doon naa leen wax naa jox leen ma seen i quarante ma dencal leen ko man dama ñibbi si waa Sénégal su ma ñibbee Sénégal bu ko defee bu ngeen eggee yéen ah seen i mbokk man leen a yónnee seen i quarante gars yi de ma noo kon dañuy feeñ ndax kon bu ñu xamee ne am na ko man leen man moom ba ma keroog may dee buñ ñu jàppee dinaa leen man sénégalais la bu leen neexee nag yéen ngeen nekk Gambien ngeen nekk Mali waaye man moom sénégalais la waaw toujours fuñ ma gi dinaa leen man sénégalais la samay pièces yëpp mi ngi nii du ma sànni benn sama boobu maa ngi woon ak sama séjour Mauritanie sànniwuma ko dama ko yóbbaale sama devise carnet vax yëpp la ma koo jël ndax ñun bu ñuy dox biir Mauritanie dañuy ŋaab suñu bagage yëpp ndax dañuy bañ ñu ramasse ñu dañuy indiwaat Sénégal. ci biir loolu gars yi daa mënoo yow da nga ci man leen ok en tout cas daal man li may dund mooy Sénégalais la Sénégalais la buñ ñu mënee permettre ñu ñibbi si ñu jàll ñu jàll waaye buñ ma bëggee indi waa Sénégal ma ñibbi si Sénégal amul leen lu ma ciy naqare amul leen lu ma ciy kii amul lu ma ciy perte amul lu ma ciy gañe léegi ban message ngay jox ñi nga xam ne dañu bëgg a dem waaw message bi ma leen jox moom c'est simple mooy nañu toog 400000 francs yi ngay versé loo ca dolli am départ am na ñoo xam ne tey yor nañ ay magasin déparé wuñu 100000 francs kon boo yoree 400000 ci loo ko investir nga dem boo ci jëndee ay ginaar sax ni damay defar poulailler sax nga génn ci ndax Sénégal léegi dañuy consommer ginaar bu baax. soo ne damaa xeeb boobu liggéey baneen liggéey boo tànn ak 400000 francs nga génn ci kon képp koo xam ne jóg nga pour dem maa ngi lay ñaan nga jaar ci yoonu légal yi ndax man bi ma jógee foofu bi ñibbisee waate bi ma jógee Nouadhibou ndax ñëw naa ñibbisi dem Nouadhibou jógee Nouadhibou bi ma ñibbisi waate àndaat ak sama collègue boobu ndax bi ma jógee Nouadhibou ñëwaat naa def fi 6 mois doo ko dellu ci biir 6 mois yi ma fi def copain boobu noonu ànd naa ak moom ñu dem ba ambassade Italie demander ay renseignements ci jamono boobu bi ñu laajtee waa ji bi ma calculer lépp lépp xam nga lu ma wax 500000 francs matu ko sama hébergement hôtel ci la bokk passe aller retour bi billet bi aller retour ci la bokk ah ndax dañu ko dañoo bëgg a dem Italie pour benn vacances une semaine ñu ne ñu bu ngeen pare ñu prévoir leen ci val bi war a dem après ça waaye moo ko waxee ma ne ko yow 400000 nga versé léegi xoolal ñun li ñu laaj mu des sax 500000. kon sa 400000 yooyu loo ci doole woon rek nga am 500000 ah nga dem Italie ci yoon bu légal jël avion wàcc. bu gën a wóor nga jaar ci géej gi saa yi ma kay man bis bu ma dee dellu noonu laay def kon li ma leen di conseillé mooy ku am sa 400000 francs jéemal investir ko ci leneen Europe léegi sax dafa yàqu ndax sama collègue boobu demoon noonu kenn ki papaam feebar na ba décédé demul ñëwul yaayam feebar na ba dee ñëwul kon lu mu am ci xaalis lu mu bëri bëri bëri bëri. gisoon yaayam wala mu gisoon papam moo ko teewoon papam bi muy dee mu gis ko wala mu taxawu yaayam bi muy dee mu gis ko moo ëpp alal jooju mu ko mën a jëlee ca bi mu demee dem ci 2006 ba léegi mi ngi doog a ñëwaat ci 2018 2019 2017 bi lay doog a ñëw lay doog a ñëwaat Sénégal.
voilà kooku jeune migrant la boo xam ne vraiment gis nga coono yi mu daj ci yoon bi ba tax na moom dafa regretté bu baax demam boobu mu doon dem. te day ñaax aussi ay moroomam ay jeunes jeunes yi nga xam ne bëgg nañ dem pour que ñu mën a vraiment bañ a dem su ko defee ñu éviter risques yi.
La radio des radios.
jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci déglu bi di leen fàttali rek ne yéen a ngi déglu seen magazine bi ñu jagleel témoignage yu ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di tukki di ko jaare ci suuf si walla ci géej gi te comme ni ngeen ko xamee am na ay junni junni junni ndaw yoo xam ne dañ ci bàyyi seen bakkan ginnaaw bi ngeen leen déglu ñoom ak seen jafe-jafe yi ñu jot a dund dañ leen bàyyi ngeen déglu maanaam témoignage yu ñi nga xam ne ñoom ñooy seen mbokk yi te nga xam ne ñoom tam dañuy faral di leen jàppale ci seen tukki ñu déglu kenn si ñoom mi ngi tudd As Ndiaye.
waaw parce que ñun dañu toog ay moment yoo xam ne comme que ñun ñëpp géej la ñuy liggéey benn famille lañ ñëpp nekk si géej gi di liggéey.
yéen ay mool ngeen.
ay mool lañ waaw. te géej gi yenn saa yi day neex yenn saa yi day naxari tey day neex suba mu naxari xam nga yenn pour naxaree ñun ñëpp ñooy suivre les mêmes conséquences. ñu jékki-jékki ñu ne ah waa gaal yi kat ñu ngi dem Europe ñu am benn ñaar dem oote ñu ne ah ñooñ de yegg nañ ah si la idée bi commencé germer suñu biir ñu ne ah war na kat bu dee benn sax kër gi kenn war na fay jóge dem waaw mais nag jigéen ñi suñu yaay yi ak jawer ma suñu d'accord dañ naan yii wóorul ñi ñaa ngi dee wala affaire yooyu kon daal yéen su ma leen déggee bi ngeen toggee xool géej gi tey mu dox tey mu bañ a dox ci ngeen décidé ne nañ yebal kenn mu dem waaw mais lu tax ngeen décidé yebal kenn est-ce que amuloon beneen alternative maanaam jox ko mu def leneen walla mu yëngatu ci commerce walla yëngatu ci leneen lu dul dem.
non mais xam nga actuellement ñëpp mënuñu bokk defandoo commerce. te pour nga def dara force nga xam lool maîtriser ko te ñun dañ ñoo xam ne suñu population dañu bëri ñoo xam ne analphabète lañ. jànguñu lu bëri.
tey nj- koo xam ne bu mu juddoo ba léegi peut-être ba mu amee ay dix douze treize quatorze ans ba léegi mu ngi dem géej. nga xëy bëgg ko jox soo ko joxoon milliard sax commerce ba du dem parce que xamu ko. waaw donc comme que yàlla def na ne yàlla def na ne si loolu lañ ciy si si loolu paramètres yooyu daal loolu daal moo tax ñu ne nañ ko yóbbu mu dem comme que Europe ñu ñaa ngi fay dem ñu naan ah ña fay dem ñu ngi tekki ñu ngi def dara et puis ainsi de suite.
d'accord waaw.
waaw sànq yaa ngi ma naan euh, koo xamante ni géej la tàmm liggéey euh, fa la ju ci lay màgg euh, boo ko joxee leneen du dox maanaam commerce ak yooyu.
Waaw.
mais ki nga bëgg a yóbbu Europe itam bu demee foofu lan lay def.
waaw bi- bi mu demee boo demee foofu peut-être mën nga dem géej continuer di dem géej li nga xam parce que ñoom tamit ñu si bëri li ñu bàyyi woon fii rek lañ dem utiwaat c'est condition yooyu nag ñoo gën a ñoo tane yi nekk fii. waaw parce que fii tamit boo nekkee simple mool kese peut-être nga am gaal mais boo xoolee benn gaal mën na yeb bu dee fii laa tourné mën na yeb ba cinquante personnes mais benn nit moo koy moom nit kooku rek moo ci am xaalis bu dee gaal gu ndaw tamit mën na yeb ba quatre personnes xam nga li mu la wax nii. mais tamit te géej gi tey mun xoola gaal yi ñu ngi Gàmbi ñu ngi Kafountine presque 9 mois sur 12 mois kon suñu géej gi amatul jën donc moo motivé ñëpp nag ñu dem te xamatuñu fu ñu jëm moo tax ñëpp dem.
looloo motivé ñëpp ñu Waaw, dem waaw.
léegi ndax mën naa xam ci yan condition lañ demee yéen ñaata ngeen fay pour ñu dem ak nga nettali ma euh, maanaam mm, naka ngeen doxee mbir mi ba mu dem.
waaw ñun yàlla dafa def comme ay mool lañ te xam nga ñiy yóbbu gaal yi ñi nga xam ne ñooy ut ay clients di yóbbu gaal yi soxla nañ ñu leen yóbbul gaal yi léegi nag xam nga ñun day gën a yomb si ñun ñun bu am na ñoo xam ne sax ay ay cinquante mille lañ joxe am na yoo xam ne soixante quinze mille. am na ñoo maanaam xam ne capitaine gaal gi lañ jox waaw cinquante voilà mille.
voilà Se- am na ñoo xam ne nag seen service dañ leen jox xaalis sax sollicité wa teewaale seen service parce que tamit boo doon xool ñi ëpp ñi dem. du waa tefes du ñu dëkk Mbuur tefes.
duñu ay mool.
du ñu ay mool xamuñu ñu ñi si bëri mësuñoo gis géej.
Mhm.
ñu jógee ay Kolda ñu jógee ay Touba jógee biir Saalum yooyu ñoo si ëpp. ñi doon dem D'accord.
waaw yow ñooñu nga gis daal ne ñoo doon dem.
ñoo si ëpp sax.
Mhm.
mais sou- souvent mool yi nag xam nga boo nee boo xaajee mool yi boo gi- génnee baykat yi. daanaka mool la ñuy jeex. parce que ñu si bëri dañuy jóge seen i village ñëw fii ba yàgg fi sax ba continuer dëkk fi boo xoolee lu bëri looloo fi sànca mbuur nii.
dëgg la.
waaw donc ñi nga xam ne ay mool lañ de souche ñooñu dañu soxla woon seen service parce que bëggoon nañ ñu leen di yóbbul gaal yi te fallait que ñu am ko ñoom tamit dañ ci profité waale dem si yóbbaale si seeni copains mais quand même joxe nañ tuuti xaalis.
kon daal yow sa rakk bi dem su ma la déggee bu baax euh, liñ ko laaj bëriwul parce que moom comme mool la woon. dafa def ay service am lañ gënoon soxla. ci biir gaal waaw gi moom moom sax moom sax déjà moom service am lañ soxla te jox nañ ko xaalis sax pour mu gën a yóbbu gaal gi. moom moom joxewul xaalis. mais bi ma ko waxee dama ci ànd à 100 pour cent.
Mm.
ba pare nag ñu ne bu ko maire yëg bu ko kenn yëg. jigéen ñi Yow.
liggéey ak maire yi.
yow nga bàyyi sa rakk mu dem euh, sans ànd ci à 100 pour cent te xam nga risque yi mu mën a am ci biir géej gi. est-ce Waaw.
que xam nga risque yi.
waaw mais xam nga ñun géej gi ñuy dem nii di nappi sax ay risques am na ay risques parce que chaque jour yaa ngi dégg ay accident yu am géej. waaw xam naa peut-être dañ ko dul médiatiser wala du dul riir comme yeneen rek mais chaque jour yaa ngi duñ toog un mois yoo xam ne ni deewul ci géej. loolu moom mënul ne donc ñun foofu rek lañu xool da- d'autant plus que ñoom ñi doon dem ñi ci ëpp ay xarit lañ moom bi mu bi ñu ko waxee indaal na ay yeneen xaritam yoo xam ne ñoom ñoom ñooy ànd bokk groupe.
xarit yooyu mbuur lañ dëkk.
buur lañ dëkk nekk ay mool ñu bëri sax dañoo soloon seen yére pour dem géej fanaani mbaali ñëw fekk que mu wax leen loolu ñu waxuñu kenn dara noonu lañ continuer dem daal di dugg ci gaal gi dugg si dem.
gaal gi dem Mhm.
waaw guddi ñu dugg ci gaal gi dem guddi.
dem waaw.
yow bi ñuy dem teew nga xool leen waaw ñuy dem.
man teew naa xool leen ñuy dem waaw mhm.
parce Yow- que instant boobu nit ñi dañ leen doon ramasse fallait que nit ñi nëbbatu ñi xam nga dugg fu nekk ruq bu nit mën a yebee sa gaal dem rek yebee na fa moom donc waaw.
yéen noonu ngeen def.
waaw noonu lañ ba def.
ba mu dem.
Noonu lañ bi muy dem lan nga yëg comme sentiment.
non jég ne wax dëgg yàlla tamit xaw naa am inquiétude parce que tamit nit kuy dem foo xam ne ma su fa dem te aventure boo xam ne chaque jour yaa ngi dégg ñu naan ñu naan ay ay gaal yu junni dee junni dee nañ ci waaw géej gi.
loolu xam nga vraiment sa xel du dal te sax ñemewoo ko wax nit ñi nii de face wax dëgg yàlla mënoo ñemewoo man benn instant dama génnoon mbuur dem toog Joal Hmm.
parce que man pression boobu attanatuma ko woon waaw maanaam bi mu demee.
waaw bi mu demee Mhm, mhm. léegi bi mu demee yéen euh, pendant combien de temps la def ci biir géej gi.
ay ay ay 11 jours ah ñoom. presque 11 jours.
def nañ ñoom def nañ presque 15 jours ñuy door a am nouvelle si ñoom. mais ñoom il paraît bi ñu demee dañ dem ba seen nourriture ak seen essence ak seen.
maanaam seen lekk ak seen jeex.
essence lépp Waaw.
jeex ñuy wër ci Waaw.
biir géej gi.
waaw ñoom maanaam ñu race yi ñu doon tëdd ñoom race yi ñu doon tëdd lañ jël di joow gaal parce que xam nga ñoom majorité bi ah, bëri nañ ñoo xam ne ay mool lañ mais ay race yi nga xam ne lañ taaj ci gaal gi muy ay planche Waaw.
lañ jël xam yor nañ GPS xam nañ cap bi ñuy daw ñu ci joow presque pendant ay deux jours yoo xam dañ dem ba loof mais dugg nañ ci zone boo xam ne gars yi mën nañ leen gis marine bi jël ci leen waaw.
kon ñoom loolu moo nekkoon seen objectif maanaam dugg ci zone boo xam ne dinañ la gis sauver la yóbbu la.
waaw non ñoom seen objectif moo doon demal yóbbu gaal gi ba yegg.
ba- xam ba nga- Espagne ba- ba maanaam.
Espagne waaw mais xam nga boo demee ay contretemps. wala li nga xalaat essence bu- ak pariage préparation yi maanaam matériel yu mel ni ay essence sax yu bëri dina sànku foofu parce que président dañuy dañuy yàkkamti gaaw. parce que boobu police mu ngi traqué ñi nga xam ne dañuy passé nit ñi. xam nga yooyu yëpp daal nit ñi dañuy yàkkamti lu bëri ay essence sax loolu dañ fa lañ koy bàyyi. léegi nag ñoom moyens yi ñu amoon rek la ñuy continuer demee. jël risque bi buñ duggee ci zone bi yàlla dimbali leen marine bi ñëw jël ci leen.
ñoom ñoo la mais nettali sonnoon loolu nañ trop. nee waaw nañ nee sonnoon nañ nañ ñoom vraiment si c'était à refaire su fekkoon dañ leen doon demaat duñ ko def.
Mhm.
parce que ñoom vraiment dañoo.
Mhm.
sauvé sauvé de justesse.
Mhm.
waaw wax dëgg yàlla.
Mhm.
dañoo dañoo sauvé daal.
de justesse.
Mhm.
d' accord leneen lu ma la bëggoon laaj euh, maam As mooy yow euh, en tant que famille en tant que frère ñi dem yow lan nga yëg bi nga toogee 15 jours gisoo leen amoo ci ñoom nouvelle.
non dégg nga man dama génnoon Mbour dama jaaxle woon carrément bu ma tëddee du ma nelaw ba guddi damay tëdd ba guddi jóg.
mais parents yi nga xam ne yoom yëguñu ko parce que nee mënuma nga ma toog jàkkaarloo papa ñoom yi, waaw euh, ñoom après yëg yëguñu ko, nañ ko biñ xam nga bu sa jabar yi jëkkër dem yëguñu ko aha.
maanaam ko bu ñu demee deux jours après ñoom yëg nañ ko xam Ci ne nga leen dañ leen ko laaj naan diw waaw fu mu teer teerul ba léegi daa dem géej man leen saa mu nga Espagne dem na mbëkki Mhm.
léegi nag bi ñu toogee man bu ñu ma laajee man leen gars yi yegg nañ ñu ngi si jàmm yow loolu nga leen daan wax di leen nax mais mais ñoom seen inquiétude mooy gars yi waaw ñu ngi si jàmm kat te ootewuñu ñoom loolu moo doon seen inquiétude léegi nag xam nga force nga jéem leen a mbëkk rek di leen dugal si saako dem naa ba mënatuma lool ma jóge fi dem Joal toog foofu nga xam ne ñoom duñ ma gis Mamas ma bëggoon nga wax ma euh, sa frère yi bi nga demee ba jot leen ñoom euh, yan condition la ñu teere foofu nga xam ci moom mooy Espagne.
non ñoom marine marine moo leen for Mhm.
de justesse fekk sonn nañ ah sonn nañ trop marine bi jël leen waaw yóbbu leen si croix rouge ñoo leen yóbboo si croix rouge nee nañ après ñu yóbbu leen si benn camp camp bi nag ñoom nee na ay junniy junniy junniy africain la ñu woon te en plus bi ñuy dem duñ yóbbu benn papier dans l'anonymat la ñuy duggee la ñuy demee waaw.
donc ku ci faatu itam kenn xamul foo dëkk waaw, kenn xamul ndax sa waaw.
frère maam As la Kenn wala xamul.
xamuñu foo soqee ko xamuñu dara ci yow.
duñ yóbbu benn këyit benn këyit duñ ko yóbbu Mhm.
dara loo xam ne dinañ leen mën identifier ñoom seen lépp lañ ko bàyyi waaw.
léegi yow loolu euh, expérience boobu yëpp nga dund ak sa frère ak stress bi ngeen amoon ak seen famille yëpp tey jii bu ñu la newaatoon jàppaleel sa beneen frère mu dem est-ce que di nga ko bàyyi mu dem.
non non man franchement parce que ñoom ñi nekk foofu sax nee nañ Europe maanaam tour la léegi tour baa fa ne dara nekkatul dëgg waaw parce que xam nga moom ñëw na presque léegi mu def fii 6 mois 7 mois léegi sa mu def frère ko.
bi waaw, waaw, demoon ci dem- mbëkk mi.
am ñëw na na am na léegi kayit bu bu duré 5 ans mais léegi mu def 6 mois 7 mois Fii ci Mbour.
waaw ci Mbour ñibbi si waat mu mel ni daal dafa ñëw toog fi waaw daal.
ñëw toog fi mu ne 6 nii li mois mu doon def dem géej mm.
loolu lay def loolu lay dem defaat.
géej, waaw.
kon risque yi su ko mu jëloon neexee lépp- moom vraiment mu dem parce que am na ay kayit mais dafa ne day toog noppaloo ko ba si kanam quoi.
Mhm.
waaw.
kon mu mel ni risque yi mu jëloon yëpp euh, dugg ci géej gi lenn lu ne mënoon ko ca fekk euh, jël na ko dem na Europe gis na ne la mu fa uti woon amu fa ñëw na toog quelque temps fii la mu nekkoon fii ba taxoon mu dem parce que nee nañ nee nga dëkk géej gi tey mu neex suba mu naqari loolu terewul dellu siwaat na fii non waaw foofu. xam nga comme li mu ma wax rek. ne liggéey bi foofu commence ni mu meloon bu njëkk ba melatu ko.
léegi yow euh, tey jii euh, li nga gis noonu yëpp ban conseil ngay jox ñi nga xamante ne tey taxaw ne la man damaa bëggoon a dem maam aas fi ma fi fi sa diw jaaroon laa bëgg a jaar lan nga koy wax ah man de Lan nga ko wax dëgg xalaat?
yàlla su ma joxee su ma laajee conseil.
Mhm.
du man du ma d'accord.
Mhm.
parce que tamit ñun seulement dëkk bi metti na bon politique bi nga xam ne wala ñu war a def pour jàppale jeunes yi ñu liggéey maanaam wax moo ci ëpp mais jëf ji néew la parce que dañuy dinañ teg euh, les structures yi teg ñi ko yor teg maanaam ñi ñu yor ay salaire yor ay oto di dem di ñëw mais dara du fa ne tey ji jeunes yu bëri loolu loolu la ñuy jànkonte mais nag du tax tamit nga dem risquer sa vie parce que tamit euh, pour man wërsëg boo toogee fii gëm sa bopp am jom maanaam sa bopp ko wax ma la nga dem si état wala nga toog di xaar état nga am jom gëm sa bopp mën nga yor sa jot sa wërsëg Sénégal waaw kon daal xale yi nañ toog jël seen wërsëg ci en Sénégal tout cas samay mais doom bu du ñu ma jël leen risque jox ñu dem Mm.
du ma leen conseiller pour ñu dem moom waaw d' accord en tant que frère koo xa- xam ne yow jàppale nga ko Waaw, pour mu dem dem na.
tey ji boo ko doon refaire dootoo ko refaire moom sax nee na bu ñu ko doon defaat du ko def du ko def waaw moo te doomam itam du ko def non moom ku moom Ndax kay mu ku ko dul def xalaatul doomam dëgg def la.
ko waaw jërëjëf def ko.
jërëjëf Euh, ce dernier mot mamas waaw di au lancé appel rek pour jeunes yu Sénégal yi xam ne ñun ñàkkuñu parce que tamit réew mu stable la yor amul gue- guerre amul dara donc gëm naa ne yow sa benn jardin bu ndaw soo ko yoree di ko arrosé di ko yàlla dina la fa fekk soo demee si géej gi tam pour li nga dunde rek yàlla na la fekk ba keroog lu ëpp loolu di ñëw parce que ñëpp kenn commencé wul xëy am lépp suñu gëmee suñu bopp toog suñu réew maanaam liggéey parce que liggéey mooy maye maanaam li lu dul liggéey du dara réew yëpp li ñu rawee du dañu ëpp mais dañu gën a mën a liggéey ñun am nañ suuf am nañ géej am nañ jant boo xam ne at mi yëpp dañ koy am suñu suuf macha allah am na ndox parce que ñu ñaan si jëfandiku donc ay ressources mu ngi génne si géej gi lu mel ni gaz ak pétrole maanaam tamit ay zircon ak lu ne mu ngi fiy génn donc état su defee tuuti effort rek xool population bi espace yi ñoom ñu aménagé ko rek dinañ mën a bay loo xam ne duñ ko mën a jëggaani li ñuy jëggaani dinañ ko mën a liggéey fii.
ndaw di ko yi jëndal itam suñu bopp.
conscient waaw gëm seen conscient.
bopp xam ne xam ne daal- li ñuy wuti fële am na non fii dafa li gën nekk fii moo gën parce que da ngay dem ñu lay xool ne yow bëtu dëkkaloo fi di la dàq guddee bëccëg ngay daw di dugg fu ne yow sama frère bi nee na ñoom bi ñuy door a dem Europe bu ñu daan xëy di liggéey poto police moo leen di escorter ba keroog fu ñuy dugg chaque pendant une semaine ñu xam ne ñi peut être ñu s- kii lañ ñu door leen a bàyyi loolu toog sa réew moo ko gën man daal loolu laay conseillé jeunes yi di ko conseillé sam bopp di lancer appel tamit maanaam ñi nga xam ne ñooy kilifa yi si réew mi ñoo gestu jeunes yi xam ne réew mi xale yi dañu réew mu am ay xale la te xale yi am na kàttan te mag ñi am nañ xalaat nañ jël xalaatu mag ñi ak kàttanu xale yi ñu boole ko bu boobaa xale yi nañ toog si réew mi njariñ na feeñ jërë ngeen jëf bokki auditeurs yi lii mooy magazine bi nga xam ne moom lañ leen indiloon si wàllu migration euh, irrégulière bi maanaam ñi nga xam ne dañuy faral di tukki di ko jaare euh, tukki bu awul yoon di ko jaare si géej gi wala di ko jaare si désert bi Euh, donc euh, ngeen xam ne euh, ay ndaw yu baree baree baree bare dañ faral di ñàkk seen bakkan euh, si tukki boobu donc euh, ñi ci àndal mooy waa Irak mooy union des radios associatives communautaires ak waa OIM ñi nga xam ne ñoom ñooy organisation internationale euh, pour la migration donc ñu ngi leen di jox daje dox daje talaata bii di ñëw si beneen émission incha allah jërëjëf.
bëgg a liggéey amoo liggéey nga di ko wuti ba dugg gaal mbokk yi mbokk yi déglu Mbour FM 96.5 Mbour FM ànd ceeg waa URAC ak OIM organisation internationale pour la migration ñoo leen di proposé émission bu am am solo ci wàllu migration irrégulière maanaam ah, tukki yu jaaru ci yoon maanaam ñuy jël wàllu ndox bi maanaam di tukkee ak gaal wala ñiy tukki ci yoonu suuf si ñu àndi leen émission bi talaata bu jot su 18h jotee jàpp 19h surtout fii ci Mbour FM 96.5 di ngeen ci ànd ak Assane John mu daal di leen présenter seen émission bu am am solo bi muy migration irrégulière tukki jaar ci yoonub ndox wala ci yoonub suuf nekk tukki bi nga xamante ne jaarut yoon lan moo motiver jeunes yi ba tax ñuy jël gaal gi wala ñuy jaar ci yoonub suuf naan dañuy tukki lan mooy lan mooy risque tukki yooyu fii lay xewee ci Mbour FM 96.5 ku bëgg nag ñu tontu la ci laaj yooyee da nga koy jàpp 96.5 ànd ceeg Assane John tontu la tontu yu leer naññ ci wàllu migration irrégulière jàppal 96.5 woote ci 88 628 50 51 88 628 50 51 mardi bu jot su 18h jotee jàpp 19h fii ci rajo Mbour FM ànd ceeg Assane John Mbour FM en partenariat avec l'URAC et OIM.